naa ne sama nee na bayre bayre waaw bayre bayre bayre bayre daa jara fonk waaw bàyyi daa jara tatagal waaw am na solo mais booy bi fu jëm booy bi laaj ko ko damaa bëgg moom du wax mi ngi ni laaj ko fii ba suba du wax kii may papaam laaj ko nga xool laaj ko moom ku bëgg bëri jënd baa ngi nii xoolal combat baa ngi noonu doo indi xeex fa mu ko téye nag dafa baax non daa mën a bëree da koo boot yokk ko kanam gala kanam ga laal la suuf. waaye bopp bi na ko wat ba Balla Gaye Tyson la. bopp bi na ko wat. non bopp bi kat dina ko wat. ndax bopp boo ko defee doo nuru bar dëgg la na wat bopp bi. dëgg la mais nii la leen di trompé. ko maa ngi gërëm Matar Diop suba teel bu baax. sama xarit jàppale na ko bu baax a baax a baax a baax. Matar Diop suba teel yow jox ko mu wax. jàppale na ko suba pare man damaa am sama mais mais Bouzé damaa am sama nit bopp suba teel ku baax la. boo ko jàppale lu bari. Euh, kooku moo fi tëggoon moo tëggoon combat Modou Lo ak Bombardier. waaw mais xale la boo xamante ni. Euh, lépp lu mu def rek lu rëy lay doon. lépp lu mu def rek am na fu mu ko teg loolu am na solo nañu accéléré parce que Franc mu ngi waaj a tuus suba teel. Franc mu ngi waaj a tuus bouse. Matar Diop suba teel jàppale na ko. waaw Lat Diop jàppale na ko. Lat Diop jox na ko xaalis bu bari. Ah, Matar Diop suba teel jox ko xaalis bu bari. Badara Gajaga jox ko xaalis bu bari. Euh, kii nu mu tuddati Pape Diouf jox ko xaalis bu bari yaa ngi dégg Birane Ndour jox ko xaalis bu bari xale baa ngi nii champion la mi ngi nii nag waxal lu la neex te ku la neex bëre. Grand Mon Ndiaye maa jox ko xaalis bu bëree bëri Grand Mon Ndiaye jox na ko xaalis bu bëree bëree bëree bëri saxarit xarit Grand Mon Ndiaye. waa directeur am wax. maa ngi sant ginnaaw ma julee sant samay ñaari waajur ñi ko wax ñii ñëpp maa ngi leen di sant di sant Moussa Fall Seras. non Kër sant na ba pare. yow mu la sant fekkaat. di sant waaw sant pap pap waaw samay nit am na ñu Kër Diop xamul. pap ñi ngi pap ñi ngi borom suñu moobul maa ngi koy sant bu baax a baax. Moussa Fall Seras ak doomu ndeyam mama maa ngi koy sant. waa Kër Mbay Fall Sayer. sayer bu mag maa ngi koy sant bu baax a baax a baax moom doomu ndeyam melu. ayca tuus tuus tuus frangi ak gaa yëpp daal. macha allah waa waa. léegi da nga waa mbaar bi. bu karite na la invité vainqueur des arènes. voilà. incha allah rabbi. yow sama waay nga aywa continuer noonu rek dina baax wul teggi sa tànk noonu dina baax continuer rek waaw acca père ñu dem ci tuusu franc mi combat bu nekk ci géew bi. vraiment. Lamine CNG war nañu dimbali ci lii quoi. waaw mais nag xam nga. non bu ñu xaarantee rek lamb ji moom day delluwaat ci 10 heures ci guddi. waaw mais mbër bu mag buy tuus. wala combat spécial sax. ñu bàyyi gaay tuus. tuus mi yàggul 10 rek la. waaw waaye dañu fexe organiser wu ba moment bi gaay di préparé wu ci biir. di sotte ko seen i kàllaaj ñu teg mbër bi pressionné ko aywa demal tuusi. xam nga. yooyu yëpp essayé nañ ko fi jàllul li am solo mooy dañu war a fexe ba mbër bu yegsee rek tuuti ah waaye mbër mi bu yegsee toog ba làmb dingoot mu bëgg a tuuti ah, bu ñu ko mayee ñoom ñaar ku ne 10 minutes may combat spécial 10 minutes 40 minutes lay doon waaw mbër yi ñoo war a xool seen taxawaay ñëw rek tuuti loolu moo amoon ci làmb bu njëkk ah bu njëkk bari na lu amoon te amatul be waaw loolu nag mooy indi jafe-jafe yi parce que li amoon bu njëkk ba ay réalité la bu njëkk ba mbër da daan dugg si rek ñu tuusal ko mu daal di jubali direct ci nen yi tuus léegi nag mbër day dugg si ba pare dem jumikaayam toog bañu ni 18 heures 25 wala 30 nga doog a tuus loolu jafe-jafe yi ñuy am en tout cas loolu na ci li koy indi en tout cas Franc ngi tuus waaye combat mi ngi ci géew bi ñooñu ñan la ñu ne ci géew bi boo yëmbal ak silo boo yëmbal dóor na mbëru Pape Matar Lo borom Sador booy yëmbal moo ñu wan ginnaaw noonu moog Zilo la Zilo booy yëmbal booy yëmbal ndax diisul ci kaw Zilo wala Zilo lijjantiwul loolu Zilo nag mu ngi bëgg a yàgg ci làmb ji mooy Zilo bi bëre woon grand combat Zilo rek énergie ah, waaw waaw waaw Zilo boobu yàgg yàgg na ci làmb ji waaw noonu noonu ay waay samba Franc de ngay mu lay cegin waaw Franc tey ji moom bi dafa tàng kooku mooy mu lay cegin combat bi daal dañoo jàppante taxaw waaw kenn jéemul dara nengeñ bu yàgg nag défendrul la ragal naa ne arbitre bi du leen ci bàyyi nengeñ bu sax défendrul la kooku mooy Mbacke Faye borom la 18. moo kan la. digganteem ak Rëm. ah kooku combat la. le 19 Fallou Ndiaye war a borom Ndiaye production. Ndiaye production. combat ñaari xale. ñaar yu mën mobiliser Diop 2 ak Siteu Ngor. waaw ñoom bokk nañ ci ñi gën a mën a mobiliser ci xale yi waaw. père. 19 stade bi bu waaw parce que Diop 2 ak xale boobu muy dajel ci tëbu ngor. waaw. ñoom ay xale lañ yoo xam nekk nii ñoo battre record bi. ci moom tayit lañ ciy waajal dafa rëy. lan lañ ciy waajal. ah rëy na de. luñ ciy waajal. lañ cay waajal a rëy père. mais Lamine maa ngi maa maa ngi nuyu Serigne Cissé bu sëñ Babacar. comité bu sa xarit maa ngi koy nuyu sa xarit sama xarit la maa ngi nuyu bu baax Pape Issa Mbow ak sëñ Saliou Diène sëñ Cissé bu sëñ Babacar si waaw ak sëñ Saliou bu Mbabane waaw dëkk fii maa ngi nuyu mais Lamine combat bi jàppante bi dafa dafa yàgg. waaw dafa guñ lu jeexal làmb ji dañoo roofoo rek. lii nag dañu wax ne bu yàggee bi dafa war a àtte sifflé loolu moom mooy doxal làmb mais boo leen bàyyee kii bal ko téye kii téye ci geñoom ndengeñ dañuy tëj bëre bi te bu yàggee défendre rek moo fay am waaw mais fii dañu waroon a àtte waaw jàppante bi yàgg na de. père. waaw. waaw. Talfa kay moom il comme ça moom moom day jël temps moom. ñëwagul ba tey. su ñëwul ba léegi ndax dina fayeeku. ah du dese lu bari de. Zilo moo leen wan ginnaaw noonu ba léegi ñoom ñaar defaguñu différence. waaw seen bëre bi sax moom dafa xaw a dafa xaw a nooy. dafa sedd guy. waa dafa sedd entraîneur yi nañu wax ak ñoom. te yow da ngaa bëgg lu tàng jër. non bëre dafa war a tàng amateur kontan kontaan waxkat yi kontaan communicateur consultant arbitre yi sax bëre dafa war a neex tàng jër. kon yow nay tàng rek. nay tàng. nay tàng bay lakkee. nay gis eh, xanaa gisoo café bu seddee duñ la ko delloo. an kay. dute bu seddee dee ko delloo. an kay ataaya. ataaya bu seddee guy duñ la sedd na. waaw meew. waaye meew it mën naa sedd ñu jox la ko meew mën nga naan bu sedd mën nga naan bu tàng. waaw waaye seen dépend rek ca climat ba. ak temps ba. ak temps ba xam nga tey jii suñ la tegaloon benn miche yu xar boo paree meew mu tàng ngay laaj. waaw wala tee. Ah, lu tàng rek. wala ñu tegal la sa ganaar nga reer ci ba suur. est-ce que est-ce que wax nga père sa tur bu bees bi. ah tur bi de yow yaa ma ko père Tapha Gueye père camp sa casque am baax na camp yaa ngi absenté de foo nekk sa casque bi mi ngi dox sa casque mi ngi dox nañ ko xoolal casque bi père dafa tur bu bees léegi dafa changé tur dafa ni ma or ak jama bu la gënal ma ne ko jama mu ne ma ñaari kilo or ak benn kilo jama ma ne ko benn kilo mu ne ma kon ñu tuddee la jama ma ne ko paala paala ma jama jama. talfa ngi noonu di dugg si per. talfa waaw. talfa guddee na de. talfa dugg si na. bàyyil tafa mu nuyoo. moo ngi dugg si 17 heures 18 heures 17 minutes. waaw